221, une autre vision de la télé. Bambay, département de Bambay, pour rencontrer ces autorités, Madame le préfet du département de Bambay, euh, les maires, les chefs de village et les services déconcentrés de l'État et les populations. Quand je dis les populations, c'est à travers demander à la population c'est à travers ces et élire mais les maires à travers aussi ces chefs de village nous avons fait na présentation mine bi ñu fi depuis 2015 d'exploiter. mais avant loolu ñu fait avant de def di pour pour gëstu xam bi ñu commencé exploiter 2015 en 2017 18 ñu taxaw parce que permis bi dafa jeexoon ñu amaat beneen permis en 2018 le temps de mettre en place 2020 exploitation a commencé waat ma leen sant ñoom ñëpp de parce que yombul won mais ñom ñep ñu ngi partager vision bi ñu am pour exploitation des façades de Bambey def ko ci façon bo xamni mo ñu wax parce que mais façon bo xamni mom la état bi bëgg mom la ko kilifa réew mi bëggee parce que euh, façade bi du ko dé duñ ko dé exploiter ni c'est parce que dañuy jox kayit kayit bobu nak ku ko joxé dafa am lu ñu sas am lu ñu wax ñu bind ko ci convention minière mu compléter décret

Euh, li ñu yaakaar yëpp si liggéey bi ak population yi ak autorité étatique bi dinañ si mun àgg bu fekkee si borom bëgg na nga fait duñ dee wax sax jafe yi mooy li may wax rek ay ay ñàkk xam la parce que bu ma joxee réponse leer na am na ñu doon wax ni tool yi kan kan kan fayu leen wane nañu ko fay nañ leen ba fay nañu lu amna ñu wax affaire emploi war nañ chiffres yi war nañ que plus de 60 ñuy liggéey fii zone bi lañ jógee ñu fi liggéeyul c'est parce que compétence yi daf fi amul salaire yi tamit wax nañ ko wax nañu tamit affaire formation wax nañu tamit ci li ñu war a fexe ba dimbale jeunes yi ak euh, les groupements de femmes wax nañu lu ñu si def wax nañu tamit euh, apport bu mine bi am ci dund euh, dund dund dund nit ñi ak ci ñetti communes yi bi ñu xoolee li fi indi si si apport boobu ba léegi nii c'est des centaines de millions ces centaines de millions yëpp wax nañu fan la dugg am na loo xam ne appui budgétaire la boo xam ne ñi ñooy defal suñuy chèque yóbbu ko trésor am na loo xam ne c'est des projets yoo xam ne communes yi ñoo koy initier waxtaan si ak seen population ñun dañuy ñëw rek fay mais avant ñuy fay bien sûr dinañ ñëw ak état xool projet bi niñ ko tëralee ndax tabax bi baax na ndax euh, kayit yëpp mat na si la ñuy soog a fay loolu ñu def nag 2015 mille quinze ba léegi mun naa wax ni sax dañ koy doubler parce que gis nañu chiffres yi wane nañu chiffres yi ay protocole lañu def mi ay contrat yoo xam ni mine bi moo ko signé ak commune bu nekk parce que ma man damay wax toujours il faut être légaliste commune bu nekk sa maire dañ ko élire population yi la élire donc man du ma dee jëflante du ma dee def contrat maire bi lay defal contrat compte signé par l' état par le par le par son représentant qui est le préfet wala le sous préfet loolu yëpp ñu bind ko si contrat ñoom ñëpp xam nañu sur ans on a fait des contrats sur 5 ans avec une exécution annuelle parce que les mandats des maires c'est 5 ans maire bi ans du dina wax ci bilan wam ak population yi lan la bi la comme ça mu voilà. réalisation ngeen euh, lan ngeen xalaat si yeneen communes yi nga xam ne ñoo nekk si biir département bi. waaw xam nga compté boo gis rek ak liggéey boo gis rek si benn lay commencé. fii si ñett la commencé parce que ñetti communes yi ñoo ko nekk. parce que ñetti communes yi la mine di impacté directement. c' est c' est la commune de Gawane en premier la commune de Baba Garage et la commune de Lambaye. Euh, mine bi village yi mu gën a jege yëpp Gawane Gawane lañu ne commune Gawane Baba Garage camions yi foofu lañuy ñuy jaar pour yóbbu phosphate bi. Lambaye tamit am na benn village bu tudd Kër Ibro Xayaan bu nekk si ginnaaw tamit très impacté euh, du ma ko nëbbu mine bi am na impact positif yu bëri mais tamit am na impact négatif surtout si village boobu ñu ngi xool nan la ñuy fexe ba ba ba liggéey si ba li tubaab bi di wax ñu ñu ñu ñu mitiger impact boobu wàññi impact négatif yi yokk impact positif yi. loolu tamit du duñ ko dee def il faut que maire yi jàpp ñu si chef de village jàppale ñu si mais tamit mun ñu ko def sànq état bi tamit contrôlé ko dugal si loxoom encadré ñu parce que même loolu may wax si kër Ibrahima Xiyaan duñ ko dee def dafa am ay textes yoo xam ne état bi moo ko tëral il faut que topp ko donc loolu suñu yëf la mais tamit yëfu état bi la. lan ngeen def wala lan ngeen bëgg a def pour mouvement socio culturel yi mais également pour les groupements bon du fekkee dama bëgg wax ku nekk par secteur la laa bëgg def xam naa bi fi jugee lan laa wax rek mooy euh, dama wax rek si si discussion yi on a une direction de l'environnement et des relations communautaires boo xam ne am na budget boppam boo xam ne pour loolu la appui yooyu am na tamit appui institutionnel boo xam ne si maire yi la jëm donc il y a deux canaux tout tout tout tout tous ces mouvements là peuvent passer par leurs représentants qui sont les les les maires qui ont un budget dégagé par la mine ñu dugal De fait, bu fekkee tamit jaaruñu foofu nous nañ toujours dem directement au niveau de la direction et présenter leur projet mais dama bëgg projet projets, xam c'est bien ficelé ñu xam ne am impact positif sur les populations Lors du amee waxuma ni naa def projet yëpp waxuma ni projet bi ma jox naa naa def ba mu mais liñ comme nous ñu ko defee ba le maximum de projet dinañ ko jël en compte ces projets yu ñu jël en compte tamit dinañ def ba à 100% pour